yàlla ne léegi laa yaqulu arham baadum awlaa bi baadin kalima arijaalu qawwaamuuna ala nisaa kooku du ko xasan wàcc na ba nga xamee ne baadum na abaadata dafa dóor jabaram de rek jabar ji daal di ñëw ci yoonam si wax ko mu ne ko xoo ko mu ñëw rek nga fayu yoon dafa tëral fayu rek ku la dóor sañ ngaa fayu ba saa di ñëwaat yàlla daal di wàcce laa ne ak jaalu góor ñi xawaamoon na ñu xam lañu ala ñu saay ci jigéen ñi ne jëkkat waa dañ koo fal ci jabaram de jëkkat jëy buur bi ci kaw jabaram kon nag fayoon sa seen diggante jaaduwul de yonente ne na moo naam bi yàlla na moo naam leen meneen mbir li yàlla na moo gan léegi jëkkat waa jigéen amut ay ci jëkkatam de góor ñi ñooy buur yi jigéen ñi ay seeni jabar day sañ nañ leen a yar sañ nañoo tey ci seen loxo xawal leen ci yoon wa gën de lu tax ma fatala laaw ci la gënal na fa yàlla baaxam ñeene seen ala baax ñu ci ñaanal ndax yàlla gënal na góor góor a fa xam-xam jigéen góor a fa xel jigéen góor a góor ay kilifa bi ma am fa ko ak la ñu dundalee it mi nam waa leen ci jub seen góor a defoon kan ci nit bi ñu sëy di am loolu moo tax de ñu fal ko mooy buur bi de ku ne amel nga sa morom xaq waaye góor gi kilifa gi de te saali xaatu jigéen ñi di way xiw waani ta tu way topp la ñuy jëkkër seen jigéen bu baax daal mooy jigéen bi nangoo topp ndigalal jëkkëram de afisaat nu way wattu lañu leen ñun xay di ci fàddu te su seen jëkkër fàddoo itam ñu wattu seen bopp waa wattu seen xalal jëkkër ñu ma xafisa laaw ci la dénk na leen ko yàlla def góor nga jigéen ñaango góor gi mooy buur bi jigéen bi moo moo moo féete suuf mu ngeen leen nag lu war la rafetal seen kàndaare lu war la yonent daf doon rafetal kàndaareem digganteem ak jabaram te du ko digle itam du digle itam muñ su fekkee ni tey yaa nga am jabar mu am di ko nga di ko muñal dañ lay yëkkatil jaamu suñu suuf yëpp bët bu set ndax ñun gi nga muñal ndaw si ci nenn mer rek musal nga ci kat ñaar fukk te yëguloo ko doo meree ndaw si muñal ko musal nga ñaar fukk waaye soo ko pesee dana pes sa doom jamboot dara nga ca du man dana mer ba xotti malaanam dara nga ca du man dana dóor xaj ba mu génn dana dóor cellu sa dana dóor muus ma dana dàq gan ñi doon ñëw ñëpp dana toj kaleera ga dana toj ndab la loolu yëpp jigéen mën naa mer ba te soo ko mer la wotoo ñëw ñëpp mucc kon nag mu nga leen bañ ñëw ñëpp bañ see gaañu waaw moo gën de wala tiit ko ñaa nga taxaa foona da ngeen ragal lu soo sow na ak su sent seen soo xamee nag ne sa diggante sa jabar gis nga ci mandarga yoo xamee ne daal waaw naa yoo dikk na seen diggante waaye soowu na waat le de kon da ngay wéet ak moom waat ko ne ko ragalal yàlla ci sama mbir na nga xam ne yàlla daf la waral nga topp ma de bu fekkee ni loola jariñ na ko ñamal foofa waajuróowu na tongu leen leen sun ma bàjee ci tëtluwaay su fekkee ni waat nga ko jariñu dañ nga ko tongu ci lal bu fekkee loolu métti na ko rek dana jajju bu fekkee ni loola tax jariñu mu gën a nuur rek ci dëng wabri boobu na dóor leen leen kon yow jëkkat bi sañ nga ko dóor dóor boo xam ne du métti maanaam du dama cër waaw du xoti der loolu terew ko métti kat wabri boobu na dóor leen leen Seydina Abubakar dóoroon na jabaram ak jàbb dañu naan ataan ataanakum dem topp nañ leen wala topp ko bu leen tàkku àll nañ ci ñoom sa biir yoonu jëm ci jëm waru jëm ci dóor leen de su fekkee nag ñu digal nga ko mu topp buñ ne xanaa ko jeg rek foog ma dóor ko de song nga ko mu jàjj buñ ne moom kaak jàjj na waaye man foog ma dóor ko rek boo boo defee loolu nag ah na laa naka yàlla kaanam suma dañu xal yan di aji kawe moom kabiran di aji mage de soo defee loolu nag ngi def gën ko ëpp doole jigéen a gën a néew doole na nga xam ne yéegi yàlla ngi ci sa kaw waaw sa moo la man foof waraw li nga ne ndaw si de wattu leen ko dañ xistum dem xam ngeen ci xaaxa bay maa te seen diggante ñaari way dencante nag wuute tab dina ca bañ xam ne diw daal diggante ma jabaram ñaayoor bi dafa sooyee ba leen akaman aji xatte di daaji maandu min ali ji tuka ci ngeen góor ga waa ka man ak yaate min ali ji tuka ci ngeen jigéen jële kon na nga xebal na ngeen xebal ñaar kenn ku bàyyi ko ca mbokk góor ga ak kenn ku bàyyi ko ca mbokk jigéen ga de ñu ne leen wax leen seen diggante suñu mënee juboo juboo suñu mën na juboo ñoom ak yaare akam yi ñu xabal parce que ñu ngi daal dem na mën a ñoom ñaar islaahan ak xewenal loolu ko ilaa dana defal yàlla bay ma diggante seen def soo xamee ne waaw ñaari way dencante ngaayoo nañ kenn bàyyi ko sa mbokk góor ga kenn bàyyi ko sa mbokk jigéen de ñu daje wax seen diggante waaw te bëgg lu may xewenal rek benn ñu juboo ànd ci waaw ak rafetal wala ñu tàggoo ci rafetal waaw soo xamee ne ñaari xakam yi daje nañ waaw balaa ñu faa jóg rek yàlla dana dana yéwénal nit ma de ñu ànd ci rafetal wala ñu tàggoo ci rafetal de ina laa naka yàlla kaana ma suma dañ ali man di ajo xam lépp lépp xabiran di ajo xam seen biir yi naka mu xamee seen bitti de waaw na ne yàlla xam na leen bu doy de man xam ci gi waaw bu doo wéetal leen ak jaamu laa yàlla na ngeen jaamu yàlla te bu leen ko sàkkal bokkaale wala tuñu ko bu leen bokkaale di moom seen dara bu leen ko sàkkal waaw benn bokkaale rek wa bil waalidayni rafetal leen yaari wajur ihsaanan ak topp na ngeen topp seen yaari wajur waaw nooyal seen sa na nga nooyal sa wàll waaw ci ñoom rek yaari wajur kenn nu leen fay rek kenn kenn ci sahaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaayam magatoo na magat magat ba daf koy boot di ko leyal waaw di ko satal lépp lu mu ko doon defal rek ba muy gone mujj na di ko defal di ko defal yaayam bu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko kii daal defe naa lépp lu ma mos a defal fay naa ko yonent ne ko déedéet du fukkente sax mu wax li mu def yëpp mu ne ko li nga ko defal yëpp moom defaloon na la ko te moom dafa la ko defaloon bëgg nga dund yow yaa ngi koy defal di yàkkam ci mu dee te noo ko mën a defal yow jiitu woon na nga tëdd ci jiitam nga gën wax ala samay juróom-ñeent ci weer loolu moom mën ngaa muus la defal ko ko li ci tegu nag lépp loo ko defal defaloon na la ko ba noppi bëgg nga dund yow yaa ngi koy defal bëgg mu dee waaw sa fukkeelam sax mën na ko koo fay demal waaye daal def nga lu baax doolin aussi sa qurba ay borom jege ñaale soo baaxee ci sa yaari wajur ci gën a màgg xaq ci jaam bi mooy wajur tamit ko jur de gannaaw xaq yàlla gannaaw yaari wajur yi nag na nga baax ci say jege ñaale rek wal jaaree dëkkandoo ak junu bi jëde aji sori ak koo xam ne du sax sa jege ñaale waaye yéen a dëkk booy nit ñi am ci yow àq de wasaay beeg àndaale waaw bi wasaay beeg ala aji àndaale bil jënd ci sette de ak sette soo ànd ak tukki wala ngeen ànd ci jàng métier wala ngeen ànd ci waaw jàng xam-xam waaw wala noo mën a bokkee nit rek waaw booy itam rek mu gën a nekk sa sa mbokk de day jokk ko war la àq yaa ngoo dëkkandoo ñetti xaaj lañ dëkkandoo bi nga xam ne sa mbokk la te jullit la. sa mbokk la jullit la kooku gadul nga ko xaqi mbokk gi ak xaqi njulit gi ak xaqi dëkkandoo bi su fekkee nag ni da ngeen a dëkk te bokku leen dara ameen nga ko xaqi dëkkandoo ak xaqi njulit gi su fekkee ni da ngeen a dëkk te du julit ameen nga ko xaqi dëkkandoo de bii dëkkandoo ñetti xaq nga ko ameen bii ñaar bii benn rek wam ni sabili ak musaafir de wama malakat ak la moom na ko ay man suma day jox seen ak waaw jaam boo xam ne yaa ko moom de yonent na ne seeni mbokk lañ seen ak may lañ yàlla leen moom loo seeni baat ngeen moom leen te su ko neexoon mu def safaan ba ñoom ñu moom leen su yàlla moom loo sa mbokk leyal ko ca la ngay lekk xodd ko ca la ngay xoddoo te bu ko togg ci jëf lu mënul soo ko toggee jëf joo xam ne diis na na nga ko dimbale na laax naka yàlla waaye bu duma yoon man kaana ka nekk na muxtaaran di aji réew mi wax waran di sukara kon kon ñu def allazina ñaaña yaqaloona danañu nay ñi nga xam ne dañuy nay bee la leen war sax ci seen alal jaax duñ ko joxe waaye amuruna te ñuy digal naa sa nit ñi bil buxli ci nay ñuy digal nit ñi dem nay ku nay nay la nay rek lay digle dañ tal sa yëf da ngay ñàkk waaye ak ci mën a te ñuy nëbb ma ataamu laa jox leen ko yàlla min fadli ci wam leen yàlla jox ci xam-xam waaw ñu nëbb ko xañaan koo xam ne lu leen yàlla jox ci xaalal itam ñu nëbb ko waaw bañ koo dundalee waaw tat naa xadoon nañu lan keefir na ñeel way weti ñaa saaban mbugal mu ñu nag mu di borom ak dox da leen de ñooñu yàlla xadoon na leen mbugal de te mooy safara ñoo naay ngo ci bakkat yi mag yi la bokk wala si na ñaaña yun fi xoona danañu sadaxe am waalom ay jitteen rea anasi ngir njëttal nit ñi wala yow mi noon gëmuñu bi laa ci yàlla wala bi noon bu jàgeen ci bisal des laaxee bi aji mujj waaw dañu ci naasa xëy ak ñooñu màkk ñooñu yàllaay te ñooñu saytaane seen aji lëkkoo de ba man yàq ni ko nekk na seytaan seytaane xarinan di aji lëkkoo ndaw ñeel ko naka ñi de sa ban na mu xarinan di aji lëkkoo ñi nga xam ne dañuy sadaxe nag te ngistal rek lañ ci jublu yàlla du nangu seen jaamu waaw ñooñu saytaane lañ lëkkoo de waaw te lëkkoo ju bon la wa ma sa alayhim leen lor war leen law amano doonte gëmoon nañu bilaay ci yàlla wala yoon nag di ko bés laaxiri ba daaji mujj waan fa koo tañ sadaxe ne maanaam fa xaw mu laaw ci la ko yàlla suñ ko defoon bu leen lor de maanaam moo leen di jëriñ wa kaana laaw ma su dañ yàlla amee si daal xam leen ci ñoom yàlla xam na leen waaw waaw dana leen fay seen i jëf de inna allaha naka yàlla laa yow lu mu toon ci misqaala daratin mën na xam sànq lañ de mën na xam sànq lañ ci bu ko jaam di amee yàlla du ko ko xañ de wayin takku yàlla du tooñ kenn ba wàññi ci ay yiwam man la xam sànq lañ di yokk ci ñaawteefam man la xam sànq lañ ku nekk lam jëf rek loolu la koy fay def wayin takku ndem nekk na man la xam sànq lañ wayin takku ndem xam na xasanatun aw yiw wi tam man la xam sànq lañ ñu bàyyi sànq lañ ko def ko boo xamee ne def nga ci lu baax lu toll ni sànq lañ wu tuuti wu xonq woowu yàlla dana ko fulande dara ci fukk ba ci juróom-ñaar téeméer way wati dana mu joxe min nga dun hutuke fi moom nag lool sun bi daa ji yàlla dana joxe yoon bu màgg bu bari boo xam ne yow jaam bi jëfula ko xana moom yàlla moo ko maye rek ci mbaaxam su pencam yàlla ah day yëf ya tàng ba tàng su ne naa nafsi nafsi yonent yi dañuy dajale dem ca aadama yaay bàyyi mbindeef yi ñëwal ramm mu ne dee de eloowu ma ko de lekkoon naa garab ga ma yàlla tere woon lekk ko dem nañ ci yonent yàlla nooyee ñu ñëw mu ne man ñene yàlla woon naa sama nit ña nafsi nafsi dem leen te Moussa ñu dem ca Moussa mu ne ragal naa bakkan bi ñu ma digaloon ma roy ko dem leen ca Isa mu ne raw yàlla ñu dem ca Isa mu ne man sama nit ña jaamu woon nañu ne maa yàlla te du ma yàlla waaw dem leen ci ku dul man dem leen ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de waaw ñoom ñëpp nañu d'accord ñoo ne yonent yaa yàlla ramuñu yonent ne ana laha ne man maa ko yelloo de bu ñëwee ramm ramm de mooy ramm yonent yi soog a mën a ramm mooy ramm wali yi soog a mën a ramm mooy ramu jullit ñi ñu soog ramonte seen diggante ak way say ji leen su ko defee ñëpp taxaw nag di ramu ku nekk ramu sa kem kattan waaw ba nga xam ne daal waaw aljana daal koo xam ne mas laa wax laa ilaaha illallaah muhammadu rasulullaah desatu ci safara ñëpp dugg nañu aljana yàlla ne yonent bi ramu na yonent yi ramu nañu malaayika yi ramu nañu way say ñi ramu nañu waaw wali yi ramu nañu borom xam-xam yi ramu nañu jullit ñi ramu nañu man nag maa des man yàlla damay arxamu raahimiin may dinaa ramu di boobu lay soqi soqi ci safara boo xam ne mosu ñoo def aw yi rek ñu ñu yóbbu leen aljana rek mooy woyoti dana mu joxe mi la duhul fi ke fi moom aljana ñoom bida ajima de jox leen yoon boo xam ne bu bëri la boo xam ne ñoom joxuñ ko de fa kay fa kaawteef ida ji na ndem dikkee nanu dañ ko mu ummatin su ko ji yëpp xeet bi tey dañ ci aju seede duubi seede waral ko te mooy yonantam ba wa ji naa tan dikkee su ko ci yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dañ ji seede waral wala ji de boo xamee ne yàlla xeet bu ne taxawal na leen oo seen ab yonantu mu seede waral leen mu taxawal ñu tat yonantu ñu itam oo yonantu sallallahu alayhi wa sallam muy seede waral ñu de yow may siñ ko sab keroog yow du dana mébét alla si na ñaaña kafaroo weddi nañu waa saw tañ mooy rasola yonantu ba wal ka sawa bi humul ardu ak xemoo seen ak suuf de keroog xëy fa dana mébétoon ñu sappi ko suuf de ngir tasa tiis ma bu ko jam yàlla xeetu yon yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak xeetam ñooy seedel yonent yi leen dëkkoon yëpp yonent nag ñun moo ñuy seede de moo tax de suba gu nekk ak ngoon gu nekk lu nit mën a def ci ñun danañ ko yóbbu wan ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jiw doomi jiw jiw ca dëkk sàngam moo def lii ci lu baax moo def lii ci lu baax ngoon gu nekk danañ ko indi ku nekk loo waxee ndoo na nga xam ne rek saane ci yonent ba de sallallahu alayhi wa sallam ten wal yi na ne waa sawata awayn ko si rek ten wal yi na ne ñaaw na jeg rek bindee baal nañu sax alxames ak altine bu nekk nag yëpp danañ ko gaaral ci kanam yàlla bu nekk loo mas a def semaine bu nekk ñaari yoon koy jëf danañ ko yóbbu fa kanam yàlla léegi daay man yaa ngi dund ak juma ju nekk nag bu nekk say jëf danañ ko wan sa ndey ak sa baay kañ tëdd ci seen bameel te doom jële fii xam ngeen ne bu ñaawee ñaaw na jekk bu dee baax nañ la sax ñu la gën a rusal ko loo def rek dañ leen ko woon yàlla yonent bi ak yonent yu jëkk ya ak say wàjju yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa xoo Ubay ibnu Kaab moo dàqoon a jàng ci saaba yi alquran mu ne ko Ubay sama borom digal na ma ne naa déglu alquran ci yow mu ne ko man mu ne ko waaw mu ne ko yàlla tudd na sama tuur mu ne ko tudd na ko mu ne naa déglu ci yow alquran Ubay jooye waaw ne yàlla tudd ma jaar ci sama tuur mu ne ko yàlla jaar na ci sa tuur naa déglu ci alquran de mu door nag ci bopp sa saaru ni saay nag di jàng mu ngi sallallahu alayhi wa sallam daa kii ne waaw ok fa kaate waaye ji naa dem di kenn matin ne fa kaat bi say di jaay wa ji naa tam di keddi ko wala wala ji naa say tam di jaay tele leen de manam ci jaay sallallahu alayhi wa sallam ko leen leen leen yow may sin def karo yow ad dina mebet alla sina ñaa nga kafara wet nañu waa saw tañ may rasul yonent ba law tasaba bi mul ardu ak bu ma seen ak suuda daroo yéefar dana wax ne xelan sama nekk di suuf ndax dafay fekk ñu dëkk ñu saab bàyyi ma yeeg janaaw yeeg yentant yeeg waaw ak njaali yëpp yàlla dana leen xisaab képp koo xam ne mas ngaa xam déjjën sa morom xamul déjjën nga daan ko yàlla dana ko saxal déjjën ne ko fayu bu fayu képp gannaaw loo xam ne mas naa xam dungu sa morom mu xamul dungu yàlla dana ko saxal dungu ne ko fayu mu fayu mu ne leen nag nekk leen di suuf ñu sottee ko suuf moo tax yëfar yëpp di leen ñee ñu xelante ñu itam ñu sottee ko suuf wala yàgtu mu ne te nëbbati ñu la ala hadisan solo keroog yëfar du nëbb yàlla dara lépp lu mu ko def waaw dana ko feeñal de loolu la muy dëppoo wallahi rabbina maa kunna musrikiina ay jamono wax nañ ne génn nañ ci yàlla ñu mos ñu sàkkal yàlla bokkaale dencal yàlla ay taxawaay taxawaay yu bokkut la ay taxawaay dañuy gëlëm dañuy xam dara loolu moo jëkk laa tas ma way laa am sol loo dégg lu may tànk bu kott rek waaye kenn du wax benn taxawaay loolu beneen taxawaay ñu ngi nii naa walaay rabbina maa kunna mushrikiin parce que noonu yàlla bokkaale kan am nañu lañuy kan waaye defe nañ ne mën nañoo kan ba mu jëriñ leen ndax yéen far xamoon na jaar na di kan di ko jëriñoo moom lañ bëgg a defe defee itam ba nga xamee ne wax nañ loolu nag yàlla kaste seen gémmiñ yi mënatuñoo wax mu wax loo cër yi ci defe cër lu nekk nag wax la nga defoon moo tax la yàlla ne nëbbuñ ko solo dina doon nañ ko juróom sax rek al yawma naxtimu ala afwaahihim wa tukallimunaa aydiihim wa tashhadu arjuluhum bimaa kaanuu yaksibuun ana ku mën a nëbbu cër yi nga xam ne ñoom kànd yàlla seede yi la am pour taxawal lay ci jaam bi di seen kon yàlla dañuy fa dina dafay niin lam defoon sànq daal ne man de ma doxoon nangam ci dama tere nangam bëccëg ne man def nga ci man nangam def nga ci man nangam dana fi lawil mahfuus ñëw nag yàlla ne haaza kitaabunaa yantiqu alaykum bil haqq sama téere bopp baa ngi nag bi nga xam ne lu wax ni muy dëgg lawil mahfuus waxat nekk dina ci yow jëfi waa ji ñu jàngat ba mu jeex yow lay sax na de yaa ayyuhaa llaziina aamanuu laa taqrabu salaata kooku lu ko wasal wàcc na ba nga xam ne Seydina Omar ngay laaj solo sangara de waaw sangara bi ci jëkk mooy dafa saganoon wa min samaraati naxili wal an'aami sax soo ñu ko taggal xanaa sonoon saaba yi naan sangara ba Omar laajee laajee ci saaru Baqara wàcc rek Rasulullah ngeen xam ne woon may sëbi qul fiihimaa ismun kabiirun wa manaafi'u ñaata fi ismun kabiirun bay ñaata ko manaafi'u linnaasi topp na ne dara ne ma ji Seydina Abdurahmaan ibn Awf firee saaba yi ñu lekk ba suur mu nandal leen sangara ñu naan ba mel ni ci ma jël ñu jiital seen yéen maanaam seen aayo ñu jàng xul yaa ayyuhal kaafiruun xasaf laa yëpp de buur ne yaa ayyuhal laziina aamanu e yéen gaa yi gëm alquran laa taqrabu salaata bu leen julli wa antum leen ci dara way man di leen de bu leen julli nit ku fekk yéen a ngi man di de ata taalamu seen ba da ngeen xamee maa taquluuna da ngeen wax ko bu julli te fekk yaa ngi man di ayow julli de man di laa aaya de bu leen mën di am ñu bàyyi sàngara fur Omar ne ba tey leerul de allahumma bayyin lanaa fi xam ne bayanan saafiyan ay maay ja ñëw na de yaa ayyuhaa llaziina aamanuu man xam woon na ci dafa daan sàmm islam ri bi na may seetaan yi ba ca faara am ci mun tawoo na omar ne ala wayin faay naa ala wayin faay naa ñu gën a day na ñu xaramal sangar ne waaw ba nga xam ne xaramal nañ waaw naan sangar xaramal jaay ko jënd ko asaasaala ko wala junuban ñu jaagar ngeen di way jàng ba hoo illaa bi sabirin ndaxe mbir mu ngeen di way jéeg jël ci yoon rek di way dox den asaa topp ko si loolu dafa ngeen sangoo de ñu xaramal sangar ne waaw ba nga xam ne xaraamal nañ waaw naan sangara xaraamal jaay ko jënd ko asaasaalam ko wala junuban di jaagar ngeen di way jàng ba hoo illaa haabin sabirin ndaxe mbir mu ngeen di way jéeg jël ci yoon rek di way dox den asaa topp ko si loolu dafa ngeen sangoo de naka mën a bu leen jege jibi te fekk ngeen nga am na janaba lu may dafa nga sangoo de loolu nga xam ne mu ngay musaaf mu nekk ci yoon amul ndox moo sangoo ah way kuntum dem nekk ngeen mag ba yooy rag rag boo xam ne dana war ko ndox awala safari yi ngeen nit mu ngeen di way dox wala nga xam ne da ngaa nekk ci tukki jana ba jot na te fekk amuloo ndox aw jaay ke gis aadum kenn min tum seen ñëw aay ci tukki jibaro wala nga dem waaw jël tànk ba noppi te amuloo ndox moo tàncoo aw laamatum e ci ngeen jaxasoo ni sa ak jigéen yi wala ngeen booloo jigéen lam sa jigéen sa jigéen naan ndox te yam ngi wuti jigéen dañu dem fàtte tey ba ngi daal te ñu ko mu taale ñu ñu ci ma ñu ñu wala na la nga yàlla daal mos moo dañ afoon bi ak yéex leen afoon bi ak baa leen waaw ñu mo ñim ñu dan ci kéemé wala ñu xam booloo ñëpp di ci rek noon ko ñu seen dindi de waaye ñam ñu ko fa ñett yi waaw ñu ko ci lool ak ya aram tara ndax gisu la ila la dina jëm ci ñaaña wutu joxe na leen ñu ko ci ñu ci kaw yi ci téere bi da mooy yehoot waaw jënd am gis wala gis nga dana ñu nëmm di do di fekk tabu wala ñu indi wala yàlla alam xam ne ay ko ci ñu ko ko fa da ñu ay ci yàlla wala ñu ni ci ay wattu ko fa ko ci ay ci yàlla rek ñu ci ay bindé ñu ne la ci ci alam ñu na ha do yo ni aw ñu wax de sona ñu dana ñu topp al kalima wa ñu tawre ñu wax ñu ñu ñu dana ñu tawre ñu ñu xam ne ñu sopp tawre waaw ci meraw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tëral ko nag andu bokk dal na ko yàlla tërale woon de wa yaquluna dañuy wax ñaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yéen digal ñu ne ko sami naa dégg ñu wax sa wax xëy na mooy lañu ndigal ko ñu ne dégg nañ li wax waaye mooy lañ sa ndigal was ma déggal xayra mos ma yam di moom yàlla mooy suñu déggale suñu wax ak yonent ne ko déggal yàlla moo dégg waraay naa ñu ne ko raay naa mooy dox bu ñàkkam tal ci seen lakke lañ lañ ndig ñu di soppi yaa ci ci ci lam seen waxtaanoon ak ay dal ci diini ci yéen islam wala waa noom dañ naka ñoom xaala waxoon nañu tamit naa dégg nañu waa tax naa tanu topp ca wax taxaw seen naa was naa ak déggal rek mun fa dañu fa xeer mos na yéen wan pour naa seetal den ci ñun ca wax tax raxe naa tan kon ci ñu xeer lo ji law ñu leen ñu wax waa ko mu tëgg na ji wala ki la fi nekk laa na mu rek ngay bur ba yermandeem sa fi ci xatum wala ñu ñu tam ci la xal leen dama ji ñu yàlla ñu leen yermandeem waaw ci mbir bi lañ nekk moo tax ñu jël yàlla mucc waaw lu koy ñu néew nag naka Abdoulaye ibn Salaam ak saaba moo gën a rafetu tagg rek yaa ayyuha lazina ootul kitaaba ay yéen ñu joxeef na leen tawra am ma dëgg leen bi ma ñu sama ci wasal ci alquran ñu fa dëkkal bi ñu dëggal bi ma maakum laa ñu fa dëkkal bi ñu dëggal bi ma maakum laa na moo gën de ñoom nañ tawreet gëm leen alquran yi nga xam ne moo wàcc te dëggal tawreet mun qabli an nasmisa jëkk bu ñu xarab mu jëwoon ay xar kanam waaw fa naru daxaatal mu jël ko ala at baare aa ci gannaaw seen bu ngeen gëmul léegi ma ma sax leen waaw seen xar kanam yi ma soppi ko mu mel ni gannaaw waaw dootu am waaw ay bët ak yi waaw bakkan ak yi yéen ak lépp dootu ci am xar kanam bi yàlla fa koy soppi rek mu mel ni aw dénk ah ñu daal di jëkkat dina gëm am ñu gëm ci ñoom ñu bari moo tax yàlla yëkkati mbugal moom mu leen tëkkoon aw na raana um ñu koy sax leen ñu di golo dama la naka xewoon asaaba sat waroon na rafet mbaa ñu soppi leen golo bo nañ defoon waaw nit ñu daawda waaw nit ñu ilata de ba nga xamee ne dañoo napp ci asa dañu xewoon nañ ko xam nga yàlla dafa leen nekk leen di golo ñu daal di nekk di golo aw laa xam naa moom waaw kama laa xam naa naka moom ma sax xewoon asaaba sat xawi asat jële wakkaana ma so dañ amru laay xattali yàlla ma foolan dinañ def de yàlla mu ngi ci jaam yi te ku bëgg a jëflanteeg yàlla yaa ngi jëflanteeg moom ci jaami rek laa yaa ngi yàlla di wax ne moom ñoo rëbb ña rëbboon ca affaire ja moo leen rëbb te ca saaru maay looy na la dina kafaru min bani israila ala lisaani man ala lisaani du daawo da la wax daawo daa leen rëbb yàlla nett li fii ne moo ko moo leen rëbb kon am na ci jaam yi koo xam ne ñoo xam ne suñ la ñaanalee yàlla ak boppam moo la ñaanal suñu rëbbee yàlla ak boppam moo la moo la moo la rëbb de inna allah naka yàlla laa yaxfiru bay bale baleti mu ñu raka bu bokkaale fa di moom wa yaxfiru waaye dana mu bay maa doona saalika lu du mu bokkaale li ma ne saa ñeen ko mu soob de yàlla day du bale bokkaale mukk kooku moom nangu ko waaye lu dul bokkaale lu bakkaat mag mag mag yàlla mën na ko baal ku ko soob ci jaamam de te xarta leen aljanna jaam yi ñaan ci xaaj lañ jaam yi gëm ak jaam yi weddi jaam yi weddi ñoo ñu xamuñ wax ñu weddi yàlla ba dee ñooñu safara lañ jamaamut wax ñu gëm yàlla ñaari xaaj lañ ñuy topp yàlla te duñu mooy yàlla ak ñu tey dañuy mooy ñu topp yàlla te duñu mooy yàlla xamuñ wax ñu aljanna lañ jëm ñi mooy yàlla yi ñaari xaaj lañ ñii mooy yàlla tey balu ak ñii mooy yàlla te bañ a balu ñii mooy yàlla te bañ a balu ñii mooy yàlla te balu ñooñu xamuñ wax aljana lañ jëm ñii mooy yàlla ba noppi te baluwuñ nag ba dee ñooñu ñu nga jëm ci coob ak yàlla ga su ko soobee mu baax leen ku baax la su ko soobee itam mu bugga leen xam na lay wam leen bugga leen bañ a bakkaat daal moo gën balu waaye ku bakkaat itam bu mu naagu bu mu def ni iblis bu mu takk lay wu muy jéem a lay wu yàlla na balu rek buur ba ku baax la dana bale bépp bakkaat lu moy nag bokkaale de bokkaale moom yàlla du ca bale dara laay ji li ko wàcce mooy wax ci yow jaamam ba xam na adi la woon moo rey xam ca xare Uhud su nga xam ne moo doon gaynde yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo doon xalifa yoon ñu yonent waaye ñu sey loo ko ca xare Uhud wax ci ma nga xam nag ne moo ko reyoon toog ba yàlla def lislaam dugg ci xolam bu bëgg a tuub de ma nga ca Màkka yonante nga ca Madina ñu bind yonante leetar de ne ko bëgg naa tuub waaye laaya tere na maa tuub laaya gi wax ne wala si na laa yadoona maa laa ilaahan aaxara wala yaqtuluuna nafsa allati harrama Allaahu illaa bil haqqi wala yasma'uun yàlla na ne ñi nga xam ne dañoo jaamu xërëm ak ñi nga xam ne dañoo rey bakkan ak ñi nga xam ne dañoo njaaloo ñu ñu du leen baal man jaamu naa jib ta saaxut maa rey xam satu li ci desit mu ne def na ko ba tey yonent laaya wàcc ci moom mu ne illaa man taaba wa amana wa amila amalan saalihan ndare ku tuub nag te te jëf-jëf gi ñooñu kay yàlla waxul ne dana leen baal sax yam ca daf ne wulaay kay yubaddilu laahu sayyi'aatihim hasanaati seeni ñaawteef sax yàlla fa leen koy sotti lay baax baax te mooy kërin yonent bind ko loolu mu ne a na ne ku tuub te jëf-jëf ji xiñ man nag dogu naa ci tuub waaye xaw ma danaa mën a jëf-jëf ji xiwam de yàlla teg ca ne inna laa laa yaxfiru an yushraka bihi wa yaxfiru maa duuna zaalika liman yashaa yonent bind ko ko mu ne wax na liman yashaa te xaw ma dana ma soobam de yàlla ne qul yaa ibaadiya allaziina asrafu alaa anfusihim laa taqnatu min rahmatillahi inna allaha yaxfiru dunuuba jamii'an yonent bi nag ko mu ne léegi nag laay tuub waaw ne yàlla ne dana bale bakkaat bu nekk te du ko faale mu ñëw nag tuub de moom wax ci de arab yamaama moo rey mu Musaylimatul Kazzaab ki doon woote ak yonent def yonent morom moo ko rey sant naa yàlla ba ma doon xeefar maa reyoon ci gën ci jullit yi waaye bi ma doon jullit te tam maa rey xeefar bi ci xeefar yi rek laa waxee rek ba ma gis rek su bokkaale na mu bilaay ci yàlla waxat yi sara judum su man bakkaara si man bilaay ji maga de alam tara ndax gisula yow ki may waxat di de lekk ne jëm ci ñaaña ñu fekk ko na dana ñëw sellal an fu ma ay bopp seen te moo di yow yow ñi tagg seen bopp naa nax nu ab naaw laay waaye baawoo te xam ne yàlla moo mën a sellal jaamam bu ko soob ñoom ñi ne rek doomi Hoseeru lañ yàlla leen jur doomi Ibrahima lañ xarit yàlla lañ ndax Ibrahima ay seen maam bali bayit daaw yàlla yi sax dina mu laabal mu ne saaw suñu soob wala sa mën a def wàññi leen parce que leen tam bu ko ñu sar sandarma de déedéet gudd du maye benn maqaama ci islam waaw cosaan du ko maye ak xeet du ko maye dara du ko maye waaw faggu rek ibrahima ma jur du tax nga nekk xaritu yàlla de ndax lay ibrahima nekkoon xaritu yàlla ibrahima jur yahut moo jur nasaraan moo jur yëfar yaaram yi rek déedéet yàlla laabal ku ko soob mu gëm yàlla di topp yàlla rek kooku ku ko mën a jur ku weddi yàlla kon ak ku ko mën a jur un suur seetam ngir ñu lay aji woo yow yonent bi kay sa yeftarona na tañuy duude ala wax yàllaal kesi bay nar de wa kafaa doy na ngir si du nar waaw yàlla isman bàkkaar bu bien bu dee aji gudde alam tara ila lisna utuna si bamina kitaabi kooku lu ko waxal wàcc na fa nga xamee ne ay maaxtab sa ngab yahood yi moo jub safiyatu ndax am goro jël goro yonent la dafa ban daal kaab ibn lasraf ñu doon sangi yahood ya dañoo war a xam rek juróom ñaar fukki ci sangi yahood yi dem makka tasanteeg abou sufyaan ko lere ci xare yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suri ko lere ko doxoon seen digganteeg yonent de ah ba nga xamee ne ñëw nañ wax loolu Abu Sufyaan Abu Sufyaan leen man du ma leen wóolu de ndax yéen borom ab téere ngeen borom xam-xam ngeen ah Muhammad borom ab téere la ñun ñi xéefari ñun ku xamuñ dara na ngeen di waaw wàcc morok ñoom juum te doy loolu daal duñ ko gëm duñ nangu lu may ngeen si jógal xelam ñu si jógal xelam ñoom fo deegat Abu Jahl na leen Abu Sufyaan na leen ñun sax suñ diine diine Muhammad lu ci gën ñun jànguñ dara yéen yéen a jàng wax leen ñu dëgg-dëgg suñ diine diine Muhammad lu ci gën soo dee yow yéen leen luy diine Muhammad Muhammad dafay woote na nañ jaamu yàlla rek duñ ci boole beneen yàlla te nañuy taxawal diine di war weeru koor ah mu ne yéen ñu seen diine ñu ñooy wattu njëgab yàlla bi ñooy garle gan ñi ñooy nandal fu jaaji ah bu ne leen yéen a gën Muhammad dina foof loolu daal dina alam tara ndax gisu la illa la sina jën ci ñaaño auto joxew na leen ban cet ñene ci kaab ci tawreet yow mi noonu ñuy gëm di jubtu ci jubtu ko taaxoo te taaxoot ay foo de yëngi yëngi dem di si jootal xerem boo yàqulona tañuy wax dina sina ñaan ñooñe ko fotowret nugi ñuy wax ñeel abi sufyaan ak saabaam ya waaw naa leen xawulaay yéen ah daa yéen a gën a jub ñu ne la si na ci ñaañoo amonoo gëm nañu sax di leen ci yoon de dara fekku leen far ñu ne xéefar ya gën diine jullit ñi wulaay ka ñooy la gaay la si na ñoo di ñooñe laano laa fariñ na leen buur ba yermandeem de u man yalxani ko fariñ na ko buur ba yermande laaw yaa u man yalxani laaw ko fariñ na ko buur ba yermande walan taji dafa fekk leen loolu ñu ko nasa maa ji dimbale leen am bayit law mu ñeel na leen na fi seet ñu mun ci nguur am dañoo defe ne moom nañ dara ci nguur ak yàlla bi déedéet de fa isan booba la ñu moomoon dara ci nguur ak yàlla gi waaye yow tamit wax dëgg naata nit ñi naqiiran kem bën bën a saalab tàndarma de su fekkoon ñoom ñoo ne ci place ak yàlla di séddale lu toll nii bën bën boobu ci gannaaw saalab tàndarma kon duñ ko jox kenn de dañoo ndax dañoo nay dañoo nay te dañoo xañaan saal bi soo ko soo ko lekkee tàndarma da nga gis lu mel ni wëñ waaw gu nekk ca xar xarab saal ba kooku mooy suuf niir ba xal see ñëw jasaaru faatiri waaw da nga ci gis boo ko lekkee lu mel ni lu weex lu ko muur mel ni malaan waaw kooku mooy fatil kooku kooku suuf niir da nga gis wëñ wëñ bi mooy fatil da nga gis ca gannaaw saal ba nag benn bën bën bu tuuti waaw bu bu ca marqué boo ko kooku mooy naqiir yi yi xeebu yooyu waaw li ci nekk yàlla léeb na ci les xeefar yi mënuñoo jëriñ waaw fit nii mënuñoo jëriñ waaw fat yi mënuñoo jëriñ naqeer ñoom bu fekkoon ñoo amee magasin yàlla yi di séddale bën bën boobu nekk ci gannaaw tandarma gannaaw saarab tandarma duñ ko jox kenn de ndax dañoo añaan am bay di wax ci loolu danañoo añaan naa sa yonent ba sallallahu alayhi wa sallam am dañoo añaan yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam dala jox na ko yàlla liñ fat yi ci yonent bi ndax waaw yonent bi nga xam ne yàlla jox na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam añaane nañ ko ko bëgg nañ mu dañ ñu ne waaye Muhammad du yonent yàlla waaw Muhammad mi nga xam ne foo ko fekk foo ko gis ma ngay takk jabar di soxla ay jabar bu fekkoon yonent bi yàlla la di demee noonu buur ne faqad aataynaa jox nanu aala ibrahima ñooñu ibrahim alkitaaba tawreet wal hikmata xam ak yonent waaw tey naa moom tan jox leen mulkan nguuraan si mën gu dee alimaa de bu fekkee dañ ne yonent jabaram yu bëri waaw dana ko soxlaal waaw du dóor yonent bi yàlla yonent yee ko jëkkoon nañ ñoo ko gën a bëri jabar de Muusaa ak Daawuda ak Suleymaan Daawuda amoon na téeméeri jabar Suleymaan amoon na junni jabar ñaar te ñeent téeméeri gor ak juróom ñaar téeméeri taara te boole ko nguur ak àddina te terewutoon mu doon yonent bi yàlla de fii yàlla ngi fiy tudd kañaan aju xañaan nag yaaram na nañ alxasuudu laa yasuud ku xañaan du nekk sang mut ndax ku xañaan fekk ku xañaan moo ku nay ñooyam ku nay fokk nga xañaan ku xañaan fokk nga nay ñoo lëkkoo ñoom ñaar du nekk sang mut ndax ñoom dañ bëgg sax xol yàlla ndax yàlla mi sàkk mu neexi yàlla am jum teg ci seen kaw dafa laaj ñu di leen jëriñ di leen teewal di leen yërëm teewal yàlla yooyu nga xam nag ne lu looy yetu gaa ko sàkku suñ bëggee mu dañ kon lu looy yetu gi lañ bëgg mu dañ de ndax jëmmi doomu aadama yàlla daf ko bind ci bañ soppe du toppe mukk lu mooy bata lu lu ko lu ko waral waralee lu ko jaral toppe daal moo koy tax a toppe mu jaral ñu ñëpp ñuy toppe yàlla nag mooy yërmandeem ji xéewal mu bari yi ak baaxam gi baax ñun ku ne leen an loolu ku bëgg loolu dañ nag te loolu suñ dañoon rek ñëpp lànk dootuñ topp sax yàlla kon yàlla lañ bëgg a fali ndem nag yàlla sax bu jëriñu ko nit ñi duñ ko topp keneen waxi noppi moo tax ku nay ak ku xañaan yaaram ne duñ nekk sang mukk day woñ ko ndax balaa ngaa nekk sang di jëriñ ñi la topp di leen yërëm ku xañaan nag moom waxuma sax la moom waaye lii la yàlla may sax bëgg na nga ñàkk ko kooku suñu doy njiit nguur nag ñetti xaaj la nguur ak saayir rek ak nguur ak baatin ak nguur gu boole saayir ak baatin nguur ak saayir rek mooy nguur gi nguur gi amee mooy nguur yi àddina yëpp nguur ak saayir rek la nguur ak baatin mooy ñu sëriñ yaame xolamaaw yi nguur ak saayir ak baatin nag mooy yonent bu nekk buur waaw waaw moom mooy xamee nguur ak saayir xamee nguur ak baatin lu demee Daawuda ak Suleymaan ak Muusa ak Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñooñu nekk nañu buur ci saayir ak ci baatin ci baatin ñu ñooy jubal bi léegi ci saayir ñooy buur bi yaate moo tax yàlla ne waate naam jox nañ leen mulkan nguuraan si moom nga daa ji nga de seen nguur ak àddina googa yàqu dara ci seen nguur ak baatin ga fa minhum aji nekk la ci lenn seen man amana ci gëm nagu jiy ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax xam-xam na ci ahlul kitaab day waaw ñoo xam ne gëm nañu yonent ba sallallahu alayhi wa sallam te mooy Abdullah ibn Salaam wa minhum waaye aji nekk la ci ñoom man fàtte ko dëdd na moon walis ko waaye xam ne it ñoo xam ne dëdd nañ laan ko bañ a gëm yonent ba de sallallahu alayhi wa sallam de wa kafaa waaye doy na ci jahanama ci jahanama faneeran ci mbugal de waaye ñooñu bañ a gëm yonent bi waaw doy na leen jahanama de waaw caay caay ñoo suuf kéefar waaye mbugal itam mën dawee fa jahanama de waaw yéefar nañ ma ni pare naa leen jaanama doy na sëkk inna lazina naka ñoo ñekk faroo wedd nañu ba asna jaal quran sunu soo ko muslim xam na noo xarfe leen naaran safara bañ lakk ca de ñi nga xam ne wedd nañu alquran yàlla dana leen tabal safara bañ lakk ca de ku la maa noo ba jot bépp bu lakkee juluudum ay der seen baddal naa um wattal leen juluudum ay mi ay der xeer a yaawoon de boo xam ne safara lakk na leen bañ ñeppati ko ba nga xam ne dara desutul yàlla ne yaramu gënal na meloon de mu delluwaat na meloon rek tey de bu indi weneen yaram kat yàlla gën a maandu ndax su indee weneen yaram lakk lakk soo xam ne muñu ko jar ba nga xam ne moo lakkoon ba soppeeku kër yi rek moom la yàlla xeesalaat mu nekkat beneen der rek tey de te jaana ma mën a lakk ci moom ba xolam sedd rek tey de waa xayra yaaxoon yoo soo ko ngi nag ñu mos ala saaba mugal ma ndax ñu mën a jànkonte mbugal ak wàlla mu baax mu baax dina laa naka yàlla kaanu musuma dañ asisan di aji mat ci nguuram xakki man di aji xarañ ci jox teeroon leen ñooñ safara ngoo safara juróom ñaari jéene la la xam see ñëw waaw jasaaru hijri insha allah jaanama la faa saxeer waaw saqar jahim hutama haawiya haawiya di dana féete suuf nag ca la naafiq yee dëkk waaw ñoo gën a tax ndigal ndax yéefar ak naafiq soo xamee ne yéefar bu ko yàlla dekkalee nag daf koy réel réel réel réel ba nga xam ne ab jóge jëm rek dana day ni jëbalu uut jóge taalam jànqaayam ji dafay tàllee tàlli ba nga xam ne mën nga caa dox doxab juróom ñaar téeméeri at su ko defee nag ñu tànni ko ca safara safara lakk ko lakk lakk lakk lakk ba mu sotee këriñ waaw yàlla delloo at kanam meloon de waaye der bu deri jëkk yam nga woon rek la ñuy delloo si delloo si ñu delloo lakkaat rek de noonu la ñuy dëkkee daay mën daa abadan jaanama nag mooy doole bi féete ko moom dana gent moom ñi nga xam ne wax nañ laa ilaaha illallaah muhammad rasulullah sa nuur su mooy yàlla de waa ta baluñ ba dee waa ñoom la ñu yóbbu ci jaanama lakkaleen fa seen kem bakkaat waaye ku xas wax laa ilaaha illallaah muhammad rasulullah boo duggee safara yi daal ak yaa leen daga génn waaw du duggaal jàmm rek tey waaye nag dana am ay moykat yoo xam ne fokk ñu tabbi safara bañ lakkaleen seen kem bakkaat ya am na ñooñ benn bés am na ñooñ waaw seen saa am na ñooñ nanaat am na ñooñ dundal àddina waaw juróom-ñaari junni ci at waaw ñu soog a génn safara de waaw bañ a dugg daal moo gën waaw suñ leen yàlla génnee nag sànni leen te yoni aljana ya ñu seen yaram yi jebbi at nag waaw mel ni gàncax googu nga gis ci waaw baax waaw jebbi nag waaw ba yaram ba jebbi jebbi ba mel na meloon waaw su ko defee rek waaw yàlla sang leen bañ seet nag waaw mu xas leen dugal leen aljana nga xam ne mooy mujj génn ci safara waaw bu ko yàlla génnee ba nga xam ne waaw tànk yi rek a def mun a yàlla génne ma rek ba ma set ci safara du ma la laaj dara lu ci tegu yàlla ne génne leen ko ñu génne ko ba nga xam ne nekkatu ci safara waaw bu noppi tuuti waaw seen keroog garab ci seen aljana yi mu ne yàlla yóbbu ma fa kergale rek loolu doy na ma sëkk du ma la laaj leneen yàlla ne yóbbu leen ko ci kerga mu toog ci kerga waaw li ñuy xool ñu ne aljana kay seen teewal yi ñu nekkee waaw li muñ la lam mën a muñ ne yàlla yóbbu ma ba ca buntu aljana la waaw yàlla ne waaw da nga ne woon dootoo ma laaj leneen mu ne loolu moom sama ko joxee dootuma la laaj leneen mu ne yóbbu leen ko ba ca buntu aljana ñu yóbbu ko ba ca buntu aljana mu toog nag muñ du ñu teewal yi ñu ngi la gisee ne teewal yàgg mu ne waaw yàlla dugal ma rek aljana ba